yaa ngi cool. waaw naka tey. ça va mon cher am jàmm. ça va ça waaw. maa ngi lay bëggee bu baax. bëggee Mahira Char maa ngi lay Char bu wér di la Chara yaa ngi am baax baax. sant yàlla bu wér naka naka naka bagage yi. waaw sant Maola. sama gars yi yéen dafa mel maa lay bëggee en maa lay bëggee bu baax a baax a baax Adams maa lay bëggee bu baax a baax a baax aca ci kaw loolu nag aca ma ñëw ma ma ma ma bëggee ko aca est-ce que boo jege see tuuti euh, ma ma ma ma nuyu ko moom daal euh, euh, xaaral ma nuyu képp koo xam ne yaa ngi pël bandiraaɓe halpulaar sukkaaɓe leydi men mi salmini on piw mi salmini on of naafiyo mexe mexe wala naafiyo wala wala fotumne aca aca ma jaw man man ma siyaar ko mama num dewe xam nga la moo ko yàq nag. Ah. c'est que boobu si suba ba léegi yaa ngi liggéey mais loolu liggéeyoon nag yàq na ko instant bi. déet waay boo dem na yow séeréer waay. ah naaf yow naaf yow. futum ne yow déggul dara kii séeréer bu gàlleel la déggul dara <laughs> <laughs> mais ba tey graaw bul nuyoo si pulaar. ah mais si lu mbaa yaa ngi am jàmm. sant nag naka voyage bi ak euh, kër Tënkara gi. non ça va ah cool Athia mo baye la nga nuyo ñi nga xam ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay déglu. alors déjà merci beaucoup pour invitation bi donc di nuyu képp ku ñu déglu si war FM. Mm-hmm. et mais aussi tam ñi nga xamante ñu ngi suivre si réseaux sociaux yi donc. Mm-hmm. Euh, di nuyuwaat toute l'équipe Euh, du festival. Donc c'est toujours un plaisir d'y parta participer plutôt. Mm Donc euh, voilà, merci nañu Nadia. Merci nañu Nadia. Mais cool nga quoi. bu baax moo tax yow gars bi la wooyee daal Sénégal quoi. <laughs> daal Sénégal bi yàq si yokk tey <laughs> nan lañ koy waxee matos. Euh, bàjjanu. bàjjanu gox gox moom déggoon naa ko pare daal Ndakaar bi léegi yokk na si. Bachir <laughs> Mbaye yaa ngi ko baax a baax. sant alhamdulilah. ati ati micro baa ngi noonu tey yaa war a def li nga xam ne tey mooy la mën a demande artistique. alors euh, comme nous ma c'est toujours un plaisir que nous puissions partager tout ce li nga xamante mais aussi ça nous permet en même temps jàngaale aussi euh, amaale avis ñeneen ñi wala nous aussi par rapport à notre propre expérience et tout de venir nous renforcer alors quand on parle de de management artistique mu n'est un métier un métier avant tout euh, mais aussi un métier pour nous ne dafa bëri lu mu laaj bëri aussi ay contraintes entre guillemets bëri aussi ces, ces moments d'inquiétude, de, de, mm-hmm. ces moments de, réadaptation, ainsi de suite. Je pense que ça contexte Covid direct. Donc, mm-hmm. c'est comme exemple en fait. Mm-hmm. parce que c'est l'entrepreneuriat culturel en fait management artistique. Euh, nous c'est-à-dire que en tout cas musique. wala en tout cas benen euh, nan laa ko mën a waxee en tout cas benn volet si art benn volet artistique du moins. Mhm. et que yow nga ne da nga koy jàppale après commencé ñu commencé la woowee manager ainsi de suite. Mhm. tey euh, ñun à wi management point sn mooy le réseau des managers et entrepreneurs des cultures urbaines au Sénégal. Mhm. suñu doctrine mooy ñun pour ñun artiste ni mu amee plan de carrière noonu la manager war a amee plan de carrière c' est à dire que. da nga war a jógee benn point. jëm beneen point. parce que comme ni ñu koy waxee tout le temps exemple bi ñuy jël tey artiste bi nga yor. par exemple en 2010 euh, disons 2018. point mooy bi mu tolon ak en 2021 c'est-à-dire que yow en tant que manager aussi mhm. fi nga tolon en 2018 mënoo rester le même point bi en 2021 mhm. mhm. donc nous mo indi euh, ñuy faire focus sur tout ce qui est formation tout ce qui est renforcement de capacité à travers le Sénégal à travers le Sénégal comme yow ni ngui koy défé yow sa conférence yow da ngay def libre ah, gars di poser question questions, ku répondre comme ni ngui koy défé rek gars yi ñom tamit commencer comprendre euh, bu nous wax tay maman lan nga ñuy wax ci lan alors euh, management ñun dañ koy comme... comme euh, manager du monde qui est comme mhm. servir de pont mhm. entre euh, l'artiste ak ñi nga xamante ñoo nekk secteur bi muy évoluer que ça soit les professionnels mhm. que ça soit le public aussi mhm. euh, boo boo demee ci yenn ci yenn surtout en France ñoom dañuy distinguer trois profils de de manager pourquoi nous ñuy jël exemple tout le temps sur ces différents profils mhm. parce que ça permet à nga xamante ne mi ngi toog duñu déglu mu xool à peu près fan la jàpp ne moom fa la toll ci management ak fan moo war nekk euh, prochain point bi on parle en premier lieu de manager de mooy Moi, qui xamante ne moo artiste première scène de Mouyek, ou le premier concert mon jeu, ou le même premier single mon Mouyek, ou la première émission cest à dire que je ki nga est tout au début la fi nekk fi nga xamante artiste peut être été xamu ko si euh, siiwagul wala en tout cas même au niveau niveau écriture ou prestation de sax tollagul fenn fii après on parle de manager coordinateur. au départ amagu un moyen pour vous constituer toute une staff donc au fur et à mesure au fur et à mesure besoin d'avancer di avancer noonu ngeen di yokkee li nga xamantane moy sen équipe de travail mm. donc tay so demee ba benn instant artiste bi day toll foo xamante ne yow mënatoo gérer lépp c'est-à-dire que da ngay soxlo ko gérer direction artistique bi mm-hmm. soxlo ki nga xamantane moy gérer community management bi mm-hmm. soxlo ki nga xamantane moy gérer habillement bi ainsi de suite ainsi de suite léegi nag loolu moo ñuy yokk yóbbu tey ñuy wax manager coordonnateur c'est-à-dire que tey dem nga ba constituer une équipe mais yow équipe boobu noonu yow yaa koy yow yaa koy coordonné suñu jógee si point après on parle de manager entrepreneur parce que da ngay dem ba ensemble artiste soit teg na propre studio teg na propre labelam hmm. wala sax lancer na propre marque ainsi de suite hmm. là tu deviens un manager entrepreneur mais euh, management comme ni ñu c'est au début au milieu à la fin de tout c'est-à-dire que da ngay mel ne ku sa benn doom hmm. xam nga doom bi doog a judd xamagul nu ñuy toogee xamagul nu ñuy doxee xamagul sax nan la ñuy ainsi de suite ainsi de suite à peu près non la artiste c'est pas que on dara mais plus ngeen di avancer plus muy am leneen lu muy jàng plus yow sa bopp li ngay jàngal nga koy mën eh, di ko partage ba moom tam plus muy avance muy am loo xamantene ne da koy jàng sur le terrain aca sama gars yi affaire bi du man dong ah yéen ñëpp ci conférence ngeen bokk aca comme moom ni ñu koy amee habitude di ko defee eh, di laaj affaire yi noonu lay demee pour mu mën a pour affaire débat bi gën a mën a ouvert ah eh, ku nekk mën a laaj aca tos ya sama waa ji jégal ma ko rek xoolal maa ngi ñëw dégg nga yow jégal ma loolu yow di ci xaaral maa ngi ñëw. dafa mel ni gars yi heure bii. Mhm. Allez, allez, gdzie OK mhm. allez, allez. Allez, vas je je pense que aperçu ma donc je mhm. suis rek. Je mhm. que un film par étape euh, première étape, deuxième étape, ça dire boy boy da fay kuy kuy euh, Donc man souvent mbir euh, bi nga xamanteni mom mom moom moom mooy xaw jaaxal. Mm. mooy que ni ñii dañ koy jël de façon improvise. Mm. Euh, aussi du professionnel trop ci mbir mi. donc lan mo waral euh, lolu noonu ci début bi est-ce que réellement am na ay école de formation yoo xamante ni actuellement est-ce que Sénégal ñu ngi ciy bàyyi xel pour artistes yi aussi ñu bàyyi leen ci xel donc nga xamante ni dina gën a professionnel ci mbir mi bu nekkee yow am nga ci aperçu aussi alors c'est vrai que de plus en plus il y quand même filière qui a xam commencé à ko dugal si université mm. mais il faut savoir que ce n'est pas partout déjà Ce n'est pas si accessible que ça non plus Nous, mm. avons ñi koy donc commencé à faire des en fait parce qu'il n'y mm. avait pas d'école spécialisée y a ne si secteur même sur le management de plus en plus nous avons koy c'est c'est mais le management artistique ou culturel de xaw différent un peu par rapport au management en général. Pourquoi mm-hmm. tey su ñu l'exemple de la euh, bouteille d'eau par exemple. Mm-hmm. Tu as xamante ne defar nañ ko pour lire euh, euh, sur l'étiquette dina am comment dirais-je continuer par exemple ñaar centilitres la. ainsi mm-hmm. de suite di nga xam ñan ñoo defar fan ko defar ainsi de suite de péremption di nga aussi prix donc ça veut dire que c'est un objet que xamante ne neex na c'est un objet fini quoi. c'est un objet fini. c'est différent de l'artiste bi nga xamante Ça a yu demain, il va pour convaincre un nouveau public. bon ndox bi tout le temps dina am communication pour cela mais c'est différent de l'artiste à chaque fois il est susceptible de rencontrer un nouveau public c'est-à-dire que public boobu mën nañ ko apprécier ou pas hmm. et ça c'est tout un travail qui doit se faire en, en amont hmm. c'est-à-dire que l'artiste da koy hmm. que ça soit physique par rapport à son style vestimentaire da nga koy jaay par rapport communication parce que bouteille bi waxul yow yaa koy waxal yow jàngal nañ la bouteille et tout c'est différent artiste bi nga xam ne saa dafa a ce sont les publics parfois qui sont qui sont différents ça veut dire que que ça soit si habillement déjà c'est juste que ça soit dans sa façon de parler dans sa façon d'écrire ainsi de suite ainsi de suite mhm. donc mon que mhm. sans compter encore que c'est une on parle d'une personne même mhm. si c'est un produit on parle d'une personne il a sa propre façon de voir sa propre compréhension sa propre façon de fonctionner ainsi de suite ainsi de suite et surtout ses humeurs et yow loolu yëpp gérer et ça c'est pas des choses que c'est-à-dire que nan ngay gérer humeur peut-être sociologie peut-être mais c'est pas euh, c'est un peu différent en fait, bataille. Donc du coup, c'est un domaine quand même qui est très très spécifique. Maintenant, de plus en plus, nous nous sommes aller dans ce sens-là, mhm. mais ça reste. L'autre nous par exemple, au départ, en tout cas pour la plupart, nous avons mhm. Et ça, il y a une différence entre qui est en l'école et qui est sur le terrain directement. Mhm. Maintenant, l'un n'empêche pas l'autre. mais l'expérience Mais l'expérience directement sur le terrain, l'autre d'aller former en fait. Il y a anticiper même sur des choses, peut-être que nous ne ok ok euh, moom di leen fàttali aussi euh, mu am euh, comment dire label bo xamantene ni dafa dajale ay mm-hmm. est-ce que euh, label yi nga xamantene dañ dajale artiste est-ce que duñ am problème pour gérer profil bu ne. Alors, ça dépend. Ça dépend parce que, euh, par exemple, moi, j'ai une structure, déjà, je suis manager de plusieurs artistes. En même temps, benen une structure, leader, comme on a je suis la directrice. Mm-hmm. Bon, une production d'artistes ce qui est différent parce que euh, après ça dépend par rapport au profil on peut dégager le système de communication. par rapport au profil on si définir les premiers premier cible en fait que ça soit le marché chaud comme le marché froid. Mm-hmm. donc cest à dire que ku si un cheminement bo xamantane mom la par exemple tay on ñuy liggéeyee ak ak par exemple je donne je peux donner des exemples. Mm-hmm. par exemple on ñuy ak Rifu ak nu ñuy Ndiol wala ñuy pas pas le même procédé parce que c'est pas le même type de, de, de profil hmm. c'est pas les mêmes cibles en fait même si on connaît ça même si si c'est une sont tu vois qu'il y a une différence hmm. donc ku il a ça donc il plan de carrière donc l'un n'empêche pas l'autre tant que c'est clair dans ta tête ku bon plan de euh, carrière le bon plan de communication après ça devient plus facile après c'est vrai que gérer des arts, c'est compliqué parce que aussi, tu dois essayer tout le temps, après le leadership, c'est le système d'organisation, les dépendre. que tu dois faire en sorte que quelqu'un ne se sente lésé par rapport à l'autre. Donc c'est à toi d'essayer de trouver le juste milieu entre ces différents, ces différents artistes-là. Ok. Ok, Je euh, fi nga xamné tay mais est-ce que manager comme comme euh, bari sama sama grave manager quoi est ce que est ce que est ce que est ce que est-ce que ce gain mën na doon sa manager parce que tay ci ce gain mënul dara comme première bi ni nga waxé dans ton postulat de départ da nga wax né ñun niñ ko commencer di defee kii sama xarit la ki sama xarit la est ce que mom dina xamné ne fi fii la bëgg yobbu yóbbu artiste parce que yeen ñaar mën na ngeen and yeen ñaar di dem 2018 lañ and ba 2020 mënuñ génn ci yow un chia avancé buñ ko mag yow est ce que tamit euh, loolu dinañ ko manager ouais c'est possible. pour moi comme avec nekk sa comme que mu nekk sa pour moi pour c'est pas un problème pour que est nekk sa manager. Mhm. à condition mhm. que nous mën séparer c'est relation relation amicale de la relation professionnelle. Mhm. parce que comme je l'ai dit tout à l'heure dem yaayu nit ki wala papa nit qui entre guillemets en fait c'est une manière de parler donc ça veut dire que day am benn proximité bo xamante ne day am tout le temps entre artiste bi ak manager bi donc tay bu dee artiste bi xaritam wala ki why not c'est c'est pas un problème parce que vous restez connecté l'essentiel là par contre mooy que ñu xam ban instant moy instant liggéey ak ban instant moy instant délire euh, pour man nga nekk manager parce que xarituñ que c'est pas un problème hmm. mais xam fan mooy nekk problème hmm. boo jàppee ne le fait que nga nekk xaritam wala mbokam. Hmm. yow yaa war a nekk manager am et puis ça s'arrête là en fait tu n'essayes pas de voir yow lan ban jéego nga mën a tegaat ak ban jéego ban jéego ainsi de suite c'est-à-dire que tey je suis manager du matos jànguma dara management mais au moins am naa yéene bi mooy yóbbu ko fenn fi moom tamit am na envie liggéey ak man ndax na confiance ci man léegi nag c'est à moi tamit ma xam ne kon man su ma amee foo xam ne dama ko fa bëgg yóbbu il faut que may am am lu may armé cest dire que mu nekk connaissance bi mu nekk jàng mais surtout mu nekk réseautage bi tey su may manager matos mu dëkk baax ñi man sama réseau yam baax à un moment donné je sers plus rien à Matos parce que Matos ñëpp xam nañ ko baax ni donc l'idée moy après nan la développer euh, nan la développer euh, la la notoriété de Matos en dehors de baax ni donc man il me faut donc un réseau bu gën élargi il faut que ma am ñoo xamante ñi ñu ngi il faut que ma xam ku nekk ku nekk je sais pas man Kolda ku nekk Gambie ku nekk France ainsi de suite mm. non lay mën a développer sama réseau sama réseau boobu moom servir de de déclencheur pour mon sa carrière

demal parce que moom dafa dafa dox ci sama làmmiñ quoi loolu laa doon am idée déjà wax nga ko parce que lii nekk sama problème mooy le fait que artiste bi voilà le fait que artiste bi euh, moom ci benn manager la mën a yem alors que manager bi mën na am euh, artiste yu bëri donc ñun dañ doon am problème boobu mais peut-être boo éclaircir léegi dinañ mën a comprendre la mooy waral loolu voilà nga euh, artiste bi mënul am plusieurs managers C'est même déjà, comme ni par exemple, le Sénégal, nous en plusieurs managers. Parce que, après conflit des en fait. Hmm. Staff, c'est possible. Staff, par exemple, moi qui gère, qui gère, qui gère, mais tu es un manager général mais nous avons plusieurs managers c'est même inscription avec. maintenant nag parfois nga artistes artiste boo xamante manager boo xam représente sur le niveau africain am keneen koo xamante ne moo koy euh, moo koy par exemple si yeneen si yeneen si yeneen continent yi par exemple mm. Mm. te moom même loolu d'habitude ce qui est conseillé Moi, le manager bi nga xamante ne sa manager officiel moom mën na wut euh, ñu ko représenté ci dëkk yooyu par exemple tey bëgg na développer sa carrière en Italie mais moom nekkul Italie en fait xamul euh, environnement culturel foofu nan la ne nan la nekkee mën fa jël représentant sauf que représentant boobu être validé par l'artiste c'est-à-dire que l'artiste artiste bi lay jaay donc mënuma jël ko xamantane ne artiste bi sentir ko wala ou xam ma jël ko xamantane ne day représenté artiste ko artiste bi par contre manager a le droit droit manager 50 000 artistes su dee un moom organisé wu xamantane ça lui permet de développer ça déjà rek ne serait-ce qu'en en termes financiers et économiques ça peut se comprendre pourquoi les c'est les pourcentages qu'il gagnent sur euh, les prestations de l'artiste ou sur ses sorties sur ses ventes d'albums ainsi de suite ainsi de suite Les hmm. pourcentage euh, ce qui est conseillé, con conseillé gagnent 10 15 après c'est négociable c'est négociable tu peux aller jusqu'à plus ça dépend si c'est une négociation maintenant si vous dee par exemple 10 là il gagne gagné ça veut dire que le pourcentage bi gën mais 10 c'est amul luma a en fait ben 10 ben artiste mhm. amul luma a par exemple location gérer communication gérer ses courant transport ainsi de suite en fait OK par contre bo amee 10 10 10 10 10 10 wala 15 15 15 wala 20 20 20 en fait déjà c'est de manager mhm. le manager ken tënk ko par exemple euh, amul tu n'es pas obligé spécialement management manager culture humaine wala manager mbalax wala salsa wala ainsi de suite amul le yow ci format ok acet euh, keneen ku bëgg ko am euh, ko am question mais mais mais mais mais mais mais mais kii comment dirais-je euh, man fi ma lay fi ma lay laaj maanaam mooy artiste bi artiste bi comme léegi laaj naa nga moom mun mënul am plusieurs manager mais fi nga xam ne tey maanaam mooy ci wàll ci wàll koppar bi ah ak li nga xam ne tey jii comme ni nga ko waxee la mooy mooy mooy street language ji mooy talking bi ni muy waxee ni muy solo ak fi muy dem loolu artiste bi est-ce que manager bi forcément daf ko war a daf ko war daf ko war a mën a demal ci ci ci artiste artiste boo waree génn daf naa ko demal nga dem solo lii ah bu waree wax eh yow lii ngay waxee est-ce que noonu manager bi war na toll foofu ak artiste bi. manager bi loolu mooy liggéeyam juste souvent. Mhm. manager bi loolu mooy liggéeyam c'est-à-dire que. Mhm. manager bi amul euh, nu koy waxatee amul amul waru am barrière en fait. Mhm. yow dañ la sant pour nga jaay produit. donc yow tey artiste bi euh, on parle de show biz mhm. c'est-à-dire que ku deux mots yu com yu ñu combiné la et c'est deux personnes yo xam kon ñokay koy liggéey mhm. c'est-à-dire que dafa am ki nga xamné ne moo gérer show bi moy l'artiste mu am ki nga xamante moy mooy gérer business muy manager bi mhm. donc tay manager moom moy xol ci environnement culturel bi ñu nekk wala environnement même dëkk bi contexte bi ñu nekk lan moy li nga xamante mom moom lañu moom la ñu def lan moy li nga xam mom moom mëna ñu mën jaay euh, je donne un exemple amna ben benn benn benn chanteur africain bu décédé woon. Mhm. léegi communauté bi Sénégal décidé ko rendre hommage. Mhm. léegi ñu invité Red Lion pour ñëw bokk si à la place du souvenir. Mhm. Nous on préparé des sons ay xam ainsi de suite sur place on voit gars xam nga déjà c'est fait et son yi public bi di free quoi en fait comme le doon ce n'était pas un mémorial vous mhm. après on s'est dit bon donc ça veut dire que fini, sans ailleurs ce n'est non, c'est pas pas la place en fait mhm. parce que ñoom aussi, un centre de recueillement wala parce que il faut comprendre de bu te faut euh, comprendre environnement culture quand on parle de environnement culturel ak euh, contexte mhm. il la mais importance c'est-à-dire qu'il faut savoir s'adapter ou la dem fenn nga xam leur façon de de faire xaw ma mën a exprimer c'est des détails voilà c'est des détails yoo xamante ñun parfois dañ koy dañ koy fàtte c'est hyper important donc on s'est dit waaw fii nag son ay yërmandeeg yooyu du fi jàll parce que ñii ils sont dans dans dans la fervence en fait mm-hmm. directement ñun dañu changé son en fait heureusement que tout le temps à part son yi nga xam moo nekk si clé bi du jour bi dañuy am tout le temps benn clé boo xam ne si bàyyi yeneen son pour en cas donc directement dañoo changer dañoo de conducteur oui. parce qu'on savait que là ça n'allait pas en fait mm, mm, mm. tey euh, artiste artiste vous bu defee émission nous pour parler parler, dañ ko nice d'un bravo cool ainsi de suite yow li c'est pas une bien sûr parce que mais après il faut que tu regardes, c'est un rôle émission parce que communication dafa dafa dafa dafa metti ñun ñii sax parfois nga def communication après tu te rends compte que am fin fenn foo xamante les gens ont mal compris wala tu t'es mal exprimé ainsi de suite ainsi de suite donc day baax chaque fois ngeen di la communication c'est pas pour rien nit di am chargé de communication c'est pas pour rien nit di am community management ainsi de suite ainsi de suite et le bi muy solo dafa dafa dafa am importance parce que n'oublions pas que c'est un produit qu'on vend euh, on dafa am habitude di wax ne. Mhm. Euh, l'habit ne fait pas le moine mais le moine se reconnaît par son habillement c'est-à-dire que nit ki boo yegsee li ñu leen juger déjà sa apparence avant même ngay wax donc ça veut dire que ne tey alors que artiste manager comme tu vends un produit yow que ça soit le contenu que ça soit l'emballage ainsi de suite lépp nga c'est pas pour rien tey a génne affiche mais affiche bu ko mat bu ko bu ko bu ko comment ça ah bëri titre mooy <laughs> d'accord <laughs> donc tey par exemple moom su defaree affiche ba pare xam nga su leen ko envoyé yéen di ngeen vérifié waat xoolaat joxe seen avis quoi et pourtant vous n'êtes pas spécialiste de la chose mm-hmm. mais xam ngeen li nga xamante ne jàpp ngeen ne dafa rafet si bët donc c' est pour dire que ne comme si affiche boobu nga xam ne tu n'es pas spécialiste yow moom ngay xool di joxe sa avis mm-hmm. ak artiste bi nga xamante ne moom ngay jaay yaa eh, tan yow war nga laaj tan <laughs> mooy borom accord doo xam naa ne bon sama laaj euh, dina nekk loo xam ne tamit euh, pour man euh, day nekk intérêt hip hop galsen intérêt hip général laay wax quoi. Ah, parce que tey artistes yu bëri tey dañuy am problème bon naka la ñuy demee ak li nga xam ne mooy seen ñi nga xam ne tey ñoo leen war a gérer seen seen seen carrière donc pour un début ñi nga xam ne.

alors xam nga euh, comme je comme je dis chaque fois nit wala parfois ne daf bëggoon nga manager ko d'habitude ñun wi euh, management li ñu lay wax mooy ki nga xamante ne jege na la wala yàgg a liggéey ak moom même bu dee amul benn connaissance bi nu ñëw rejoindre en fait foofu pourquoi parce que parfois yow di nga toll benn ensemble boo xamante ne c'est pas parce que artiste siwul ou quelque chose comme ça ça n'a rien à voir mais c'est juste que parfois yow sa temps maytu la ko mhm. tout la par exemple tey euh, man personnellement damay toog jékki-jékki ma bloqué sur deux ou trois arts c'est ne année bi nii nii artistes yi du ma si yokk kenn. c'est-à-dire que mën naa travailler quelqu'un sur son projet d'album. Mhm. mën naa travailler moom sur son événement ainsi de suite ainsi de suite mais du ma ko nekk. c'est-à-dire que nekkoo manager officiel pour benn benn temps bu gudd parce que mhm. temps bi du la ko may. Mhm. donc tey il faut aussi comprendre ku si nekk booy débuter noonu ngay débuter c'est-à-dire que aussi euh, ku si nekk tu essaies de voir man lan mooy mën a nekk porte de sortie tey ku si nekk mën ngaa manager c'est-à-dire que man mooy li may wax tout le temps ki nga xamante ne commencé nga liggéey ak moom te amul benn connaissance bi c'est pas la peine nga koy changer pour dem wuti beneen manager boo xamante ne peut-être du ko ëpp niveau ainsi de suite ainsi de suite comment xool leen nan ngeen di def ba kooku noonu am le niveau qu'il faut c'est-à-dire que mu commencé déjà formé wu même bu nekkul formation payante wala leneen même sur le net sax suy lire di lire ak mën a découvrir mën a comprendre en fait qu'est-ce parce que la première chose à comprendre mooy lan mooy sa liggéey hmm dès que nga comprendre yow lan mo nek sa liggéey exactement mhm. le truc devient facile lan moy sa liggéey en tant que manager moy faire euh, euh, participer à la notoriété de l'artiste c'est-à-dire que nga def tout ba nga xamante artiste ba nit ñi xam ko c'est de lui de faire en sorte que mu am ben mu am ben fan buzz c'est-à-dire que nga def ba nga xamante amna public bo xamante ñom ils sont prêts à ce que artiste bi fu muy dem wala lu mu génne ainsi de suite ils sont les premiers à à essayer de l'avoir wala à aller sur place pour le soutenir En de suite ainsi de suite il faut qu'il soit connu par les les promoteurs c'est-à-dire que nous organiser ay événements wala les tourneurs aussi moins ils permettre qu'ils puissent être dans leur dans leur programmation il faut que tu fasses en sorte que les médias xam ko di wax ci donc il faut nga am benn benn relation boy créer entre moom ak ak nu ñu koy waxatee ak en fait en ce sens dès que nga xam ne yow lii mooy sa liggéey après ça devient facile parce que soo tu tey nga ne ah man dama war def ko média yi xam ko d'accord lan laa war a njëkk def xam déjà lan médias c'est-à-dire que Sébikotane la nekk il faut ma xam Sébikotane ban média ak ban média moo fi nekk il faut ma xam ban animateur ak ban animateur moo fi nekk il faut que nous mooy mën a dem déplacer wu dem wax ak te il faut que je sois convaincant c'est-à-dire que ki may ñëw di jaay mais ñom xam diw ak diw ak diw ak diw ñoo comment j'ai fait sortir mon artiste du lot ba nga xamante say suma ñëwé wax ak retenir artiste turu artiste bu donc après même chose y a des concert ñun ñëpp ça nous est arrivé tay nga dégg concert bu am kenn programmé la nga ñëw gis rek sama mm-hmm. artiste parce que au départ la que xam nga du ba programmé ko wala fay ko parce que mm-hmm. xam ko xam na instant même su ma ko public et mm-hmm. pourtant mën na fekk ne talent bi il suffit que mu jàll si scène après ça peut ça être son ouverture en fait donc la première des choses que mu nekk manager bi ko bi ko que ki wala mu xam déjà lan mooy liggéeyam exactement ak lan mooy objectif am fixé wu ay objectif cest à xam naa léegi lan laay liggéey léegi lan mooy sama fa laa bëgg a jëm nga doog a nag tracé nooy def ba jëm foofu nga jëm. kon ça veut bu ma la déggee mooy que artistes yu ndaw yi am seeni i ménagères nañ leen jéem a téye ménagères yooyu tamit jéem a xam lan mooy seen liggéey kon. ménage artistes yu ndaw yi moom moom mënuñu laal Mama Faye quoi. ah waxuma loolu de. <laughs> li ma ci dégg nag mooy artistes yu ndaw yi. nañ ñëw ci ménagères ñuy taxale quoi. <laughs> <laughs> mais sama deuxième question peut-être di nga ci ñëwaat. mooy est-ce que ménagère bi am na droit dugg ci texte artiste bi parce que souvent dañuy gis ñu am problème boobu mu ñu bëgg a yóbbu benn direction ci artiste bi. Mm. direction boo xam ne artiste bi moom. peut-être qui mais trop trop des problème parfois ça dépend si c'est concept En détail, pour ah, mm. personnellement am pour manager type d'artiste peut-être. Mm. Mais parfois aussi, vous choisir artiste, au-delà du côté euh, business, je pense que nous aussi, des derniers bailleurs côté euh, sur réalité. Mm-hmm. C'est-à-dire que mon euh, bonne vision là, voilà, man sama, sama, sama, sama, sama éducation même entre guillemets, là, là, moi, là, là, C'est-à-dire que t'as, un artiste qui a maintenu, ni l'animal en fait. Mm-hmm.

amuñu ben ben connexion en fait ils n'ont pas la façon la même façon de voir ni la même façon de se comporter ni la même façon de se parler ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite foofu day agir parce que tey damay gis kii bi texte man ni muy wax nii man nekkul loo xamante ne man pour man waxin la wala tey mu utiliser termes yoo xam pour man c'est pas des termes à utiliser ainsi de suite d'habitude loolu mooy indi bi parce que man mayatuma mon moom mu exprimer comme moom ni mu ko sentir mais man damay mu exprimer comme man ni ma ko fort faut d'habitude la conflit la conflit des arrêts mm. après est-ce que manager war na un euh, si si si si qui ni ni Mais pas un problème moi personnellement mm. pour n'est c'est pas un problème c'est pas que nous avons changé le texte wala qui mais parfois nous bind un affaire nga ah, par exemple euh, je me rappelle am na un texte qui def bu donc il fallait parler il fallait que que que santé sport bi wax éducation wax ci commerce ensuite et ça il fallait que ça soit un travail ça devait être vérifié parce que les lu si wax santé par exemple mm. ça devait être leur xamante ne bu génnee ah non information santé ou le ministère ou les fonctionnaires, ou wala donc ça veut dire que mm. il fallait venir par un texte bi ñun pour voir est-ce que tout c'est différent demande par exemple son ego trip d'habitude du ma si intervenir mm. <laughs> mm. en fait mm. parce que là ego c'est plutôt personnel en fait artiste mon mon c'est différent de ce wax si fait de société en société pour moi, le manager doit pouvoir donner son avis sur les textes mais quand même d'une manière modérée parce qu'il faut qu'il laisse à l'artiste aussi le soin d'exprimer son côté artiste. mais mais mais maman vous faites qu'un artiste bi peu ëpp bagage manager ëpp bagage c'est-à-dire. maam cest à moo ko gën a xam milieu bi moo ko gën c'est-à-dire li mu war a xam moom artiste bi ko ëppale quoi. mën na nekk. donc kon kon. <laughs> non c'est que c'est que parfois da ngay gis euh, nga am sa benn manager déjà yow bu fekkante ne bari ñu nga nekk wala sebi yow xam nga animateur yi. xam nga xam nga xam nga xam ñëpp ñu yëngu ci culture ci ci sebi fii. Mhm. wala bari ñi wala boo génnee hors site boobu sax. mais alors manager bi moom xamul loolu te pourtant moom moo nangoo doon sa manager. léegi nag foofu la manager di jógee dem jàngi loolu. voilà voilà. parce que xam nga tey parfois loolu am c'est-à-dire que tey artiste bi yegg na foo xamante ne après moom moo choisir manager boobu ah. moom gis na ne moom moo ëpp bagage manager te moom moo ko jël parce que parfois artiste dina yegg fenn foo xamante ne même su dee xam nga ñëpp mais hmm. amoo temps amoo temps gérer ñëpp en fait amoo hmm. temps toppoon link yëpp ab temps di wo animateur directement wala ainsi de suite ainsi de suite bu boobaa rien ne t'empêche xam liguey liggéey manager avant tout c'est une équipe mm. c'est-à-dire que man suma guenné fi soxlo mom euh, moom diw di xam ne de maa ko ëpp lu xam parce que c'est un mm. travail d'équipe en fait mais su boobaa da nga xam contact yi mais jël contact nga jox ko sa artiste tu vois ce que je veux dire mm. après nag c'est à l'art c'est au manager non jox ko sa manager du moins ça après nag c'est au manager de développer euh, quoi ñu koy waxatee link boobu ak ak média par exemple soo xasee ba am il faut que anim il faut que même euh, nu ñu manager mu sopp il faut que nous sommes carrément, jusqu'au <laughs> bout en fait. Mm-hmm. Il faut qu'il essaye d'établir des liens que ça soit avec. Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle des, médias, on parle de, mais on n'a pas parlé par exemple des sponsors, mm-hmm. euh, des partenaires, ainsi de suite. C'est-à-dire que le travail, c'est à lui de le faire. Mm-hmm. Moi, comme les artiste artistes, il travaille beaucoup plus que d'ici, euh, peut-être matin un tout petit, alors que le manager, tu travailles le matin, l'après-midi et le soir. C'est-à-dire que artiste sont que studio le soir, d'habitude tu es là-bas. Alors que si le matin, en même temps, instant, il y a coréens yi dem euh, di di xooli euh, partenaire wala sponsor ainsi de suite ainsi de suite donc ça c'est-à-dire que bien instant c'est à l'artiste mhm. mais nga dem jéem a xamee plus nga dem xamé ji plus euh, sama gars yi ñi nga xamné vous nous tenez en cours c'est que nous sommes en direct sur la 104.9 wa FM il est 12 heures passées de 4 minutes comme niñ ñu leen ko waxé la conférence euh, deux conférences le management artistique et la connaissance du hip hop le management artistique de ngeen ko nga xamné ne tey ji mooy Mama fay ni ko nekké mu ngi koy mu ngi koy toj mu ngi jël yax bi diko diko diko di ko di di def lu garaaw donc ce rapport yéen ñi nga xamné ne après nañ leen tëjil lim yéen ñi nga xamné ne bëgg ngeen a laajte ngeen laajte ba tay fekkee né tos da nga am lo lo bëgg a laajte ñew effectivement aca maa ngi gis noonu léegi euh, sës moom tamit ñëw na maa ngi koy bëggee bu baax a baax baara wéy sës na ko waar jës man. waaw euh, ah, ba tas am na loo jëwee sa sànq de ma wax wala ma <laughs> <laughs> ah, <laughs> moom mooy loolu. Euh, sànq wax ci côté pourcentage bi je pense que ni artiste bi fi nga xamante ni mën na fa gagné dafa bari ci côté réseaux sociaux yi ci côté plateforme yi nga xamante ni moom mooy aussi. SODAV donc du est-ce que réellement pourcentage yooyu nga euh, euh, les réseaux sociaux les plateformes est-ce que pourcentage il faut jouer ci manager bi ba côté boobu noonu. Alors, c'est vrai que l'IMSU joué, d'habitude parce qu'il faut comprendre que euh, ce digital, l'église c'est comment c'est en fait. C'est-à-dire que, après, euh, c'est ça l'essentiel, il faut tout le temps nous réadapter. C'est-à-dire que le type de contrat béni à il faut que nous changions par rapport à Crène parce qu'il y a des changements. que euh, pratiquement, revenu artiste, ça s'arrêtait à la sortie d'album. Après, on a vu que c'est beaucoup plus les albums, mais surtout avec les prestations aussi, ainsi de suite. Après, il y a, il y a les sponsors ainsi de suite ainsi de suite nous ñu dem ba nga digital donc loolu comme je dis c'est sur des négociations c'est à dire que tey damay liggéey je suis pas obligé parce que comme on dit il y' a des modèles de contrats qui sont là c'est comme il y' a des modèles de documents de partenariat qui sont déjà là et tout sous le signe nekk nag beaucoup ko adapté en fonction de yéen li en fonction de li nga xamante ne moom d'accord moom peut être c'est un peu compliqué mais quand même c'est possible parce que tu as une idée claire de li nga xamante ne moom c'est à dire que tey ma artiste nous on travaille sur on travaille sur ton projet d'album mhm. donc ça veut dire que album bi plus plus généré Maintenant temps là, c'est de pourcentage tant que c'est un de pourcentage sachant qu'il y a plein d'autres choses qui qui rentrent bien. Euh, artiste bi euh, nous mu tuddati manager bi paramètres un paramètre pour euh, mën détacher plus de sponsors. alors déjà quand déjà nous de marché c'est-à-dire que quand tu cibles des sponsors ou des partenaires il faut que tu ku si ban volet nga ko mën a parce que il faut ñun parfois dañuy toog rek ñu ne bëgg nañ diw diw diw partenaire sans voir sans jéem a comprendre ñooñu noonu lan mooy seen lan mooy seen lan mooy seen objectif wala ñan ñooy seen cible en de suite en de suite c'est-à-dire que je donne un exemple boo xamante par exemple ñiy defar ay bouillon tey boo ñëwee di leen wax euh, musique wala c'est rare sax c'est très très rare nga gis leen si ay événement culturel surtout ay musique ainsi de suite pourquoi parce que foofu jeunes yi ñoo fa ëpp ñoom seen i cible direct nekkul jeune bi nga xamante ne day dem seeti con seetaani conseil wala mu jënd album intéressé ko ki ko ki ko intéressé mooy les femmes wala ñi nekk seen i kër ainsi de suite ainsi de suite moo tax soo xoolee sax même seen i caravane ak yooyu yëpp yu si ëpp supermarché yi lañ koy defee parce que ñoom dañuy jàpp que ñoo di dem marché ainsi de suite ñooñu ñoo gën a intéressé si bi ñoom ñoo soxla loolu c'est différent tey boo jëlee télé euh, kii téléphones yi ñoom d'habitude gis nga sen pub sen euh, publicité dañ concentrer sur les jeunes parce que les jeunes yi li ñuy en termes de crédit li ñuy dépense en termes de connexion ainsi de suite ainsi de suite c'est différent donc ça veut dire que nous ñoo nekk seen premier cible yow tamit booy def sa projet il faut nga xool ñi nga xamante ni kon ñooy xaw intéressé aussi yow li c'est-à-dire est-ce que yéen bokk ngeen cible déjà euh, je je parlais d'un projet ce matin may wax ki expliquer. ma euh, projet vidéo tel sponsor ak tel sponsor ak tel sponsor laa si nar a parce que xam naa ne diw moom affaire xale yi moo ko intéressé diw affaire entrepreneuriat boo xamante ne day indi xaalis kon ñooñu nekk si ay affaire entrepreneuriat social ñoom entrepreneuriat boo xamante ni day business la moo intéressé parce que donc projet bi volet bi nii lay def tourner volet bi nii lay tourner en de suite comme ça partenaires yooyu ils sont ils sont intéressés par par ton projet or que ñun d'habitude ce qu'on veut faire mooy dañuy bind suñu projet ñun lii lañ bëgg def léegi ñu bëgg la ko <laughs> imposer par force ne da nga siy adhéré c' est à dire que il faut partenaire bi que ça rentre parce que partenaire bu si li sponsor bu si nekk dafa am moom cahier de charge am moom lii mooy ay objectif am ñii ñooy ay cible am il faut que yow nga jéem a di comprendre ñooñu nan la ñuy fonctionner am na benn benn benn bon pour ne pas citer de nom benn benn kii bi doon defar ay boissons léegi dañ doon génnee benn produit mais tur bi da doon collé ak turu turu turu turu Red Lion voilà <laughs> turu Red Lion donc foofu lañ leen jaar c'est-à-dire que produit bi King la tuddoon non non astafurlah ki la tuddoon euh, waa King sauf que symbole bi gaynde la woon gaynde la woon quoi donc nan lañ leen convaincre convaincre réunion neen bon vous sortez un projet boo xamante ne euh, logo bi gaynde la hip hop bi benn ki ngeen fi am culture bi artiste benn artiste ngeen fi gis boo xamante ne gaynde dafa nekk ci turam red lion donc ça veut dire que seen kii day day day non collé non non non non partenaire du projet après même ils nous ont accompagné ainsi parce que qu'ils savaient que combinaison bi ça ça en fait

ci benn affaire laa bëgg laaj dèjà sax dañ moy dañ mooy yónni euh, mooy tout le temps mooy euh, euh, artiste bi maanaam règlement yi mu war a am wala droit yi mu war a am par rapport ak manager am wala manager bi aussi moom li mu war a mën a am comme ay droit par rapport ak artiste am parce que par exemple artiste yi man artiste la am naa fi aussi ay morom artiste dañoo sikk trop ñu moom loolu dañ koy nangu ah, waaw ñun dañoo sikk <laughs> te te voilà il faut donc est-ce que ménageurs yi daf ñu dañu war a bàyyi ci sikk boobu noonu wala euh, à tout le temps ñoom dañ ñuy yéeg de telle sorte que ñun dañu war a bàyyi voilà ñun du ñu mel noonu voilà voilà nan la nan la war a demee ci diggante bi quoi est-ce que voilà dañu war a empêcher totalement que ñun ni ñu mel parce que melokaanu artiste mooy loolu ñun xam nañ ni mu demee voilà ñun ñëpp ci milieu bi lañ nekk donc voilà loolu lay bëgg a laaj aussi quoi bu dee ni nga mel dafa nar a tax ba du atteindre objectif yi nga xamante ne moom la ñu fixé non duñ la bàyyi nga mel <laughs> parce que en fait ça nous arrange pas. absolument <laughs> et c' est comme c' est pareil que euh, parfois nga gis artistes yoo xamante ne moo tax tout le temps discussion entre artiste bi ak manager mu baax c' est à dire que il faut que art manager muy jël le temps d' expliquer à l' artiste ce qui se passe wala li mu bëgg def lu tax mu bëgg ko def en de suite parce que loolu da indi euh, incompréhension yu bëri parfois nga ne artiste bi ah lii de laa bëgg def rek tak mu ne non du ma si

dina comprendre li nga xamante ne moom nga ko doon wax et loolu ça nous arrive tout le temps même ñun suñuy entreprise parfois nga joxe benn idée wala nit wax benn affaire ñeneen du si d'accord parce que instant boobu ñoom gisee wuñu noonu mm. mais bu ñu avancé toujours rek après ils vont s'en rendre compte li bon nag par contre mooy rëy c'est-à-dire que man ma dem ba gis ne ah manager bi kat li mu doon wax noonu la wala sax parfois manager bi gisee noo xamante ne artiste ba ko leen fekk na artiste bi li mu wax noonu moo gën a pertinent mm. c'est-à-dire que tey ku si rendre compte que ne ah ki ki si des kat li mu doon wax moo gën a pertinent mais bul rëy ko nangu nangul ne li mu la doon wax noonu la et puis vous avancez dans ces bases là parce que comme li ñuy wax fóotu biir nekk dafa am ak fóot est ce que noonu la. waaw noonu la demee. la leen sa sa la leen sa sa la en famille quoi. <laughs> voilà. <laughs> mi ngi noonu donc c' est à dire que bu ngeen génnee les gens n' ont pas besoin de de savoir kan moo joxe woon idée booy kan moo d' accord woon kan moo d' accord loolu ça n' intéresse pas les gens de dehors. Hmm. par contre yéen bu ngeen toogee si biir yéen yéenee waxtaanee loolu en fait. man de bi ma bi ma bëgg a posé <laughs> mooy dañ ma siy sonal est ce que manager bi mooy génn xaalis bi dem fay ji.

dañuy jënd dañuy jënd dañuy jënd yëreeg yooyu mais parce que c'est c'est c'est inclus dans le projet c'est-à-dire que ma ne sama artiste kañ def tel projet mm-hmm. man si le projet boobu noonu budget wu li muy sol sax mi ngi ci biir et c'est normal en fait mm-hmm. au dé mooy li may wax xam nga entreprise Euh, parce que l'artiste aussi c'est un projet en fait tey jii plus entreprise muy avancé moo koy dicté li nga xamante ne moom la soxla c'est-à-dire que tey su may tijji entreprise au départ soxla kuy gérer finance bi kuy gérer communication ainsi parce que tollagu ma foofu en fait am sax lu ma fayee lool mais plus ngay avancer plus nga dem ba nga xam ne lay imposer que ah yow ko toll nga foo xamante ne il faut nga am euh, adjoint tool nga foo xamante ne amatoo temps di gérer administration bi di gérer waat finance bi nga wut koo xamante mooy gérer finance bi ainsi de suite ainsi de suite artiste bi doogu yegg si parfois nit ñi defaguñ trop attention si loolu la sol si xam nga son bi est-ce que bit bi da koo téléchargé ou pas duñ bàyyi xel si loolu mais plus ngay avancé plus ñu commencé daal dina commencé juger loolu nan la solo nan la waxee xam nga euh, bi muy ñëw oto la jël wala kii la jël xam nga ainsi de suite ainsi de suite léegi nag su boobaa aussi da ngay xam parce que artiste amul benn niveau bu mu yegg donc on travaille en conséquence de de de ça en fait en prenant en compte tous ces tous ces points là tu comprends pas mais est-ce que dafa war a fay son bi comme j'ai dit c'est un travail d'équipe en fait c'est un travail d'équipe qu'on est en train de faire c'est-à-dire que si si dee damay manager artiste son boo de présenter euh, les animateurs amul sens parce qu'on n'avance pas mm-hmm. parce que quand on am à l'émission, décrocher décroche émission l'équipe. décrocher rien ne m'empêche de le faire il faut savoir que d'habitude sax communication bi artiste def wala transport manager bi def du moins wala transport yi def pour dem régler yenn choses parfois c'est pas rémunéré mm-hmm. mais tu peux exiger que ça soit rémunéré c'est-à-dire que si contrat bi en dehors 10 il cent 15 20 25 bañ yegg 30 ñu ne 30 pour cent lay fayeeku artiste <laughs> donc c'est vous dire qu'en ne en dehors de ça ma ne yeneen dépenses yi may def dañ ma rembourser c'est-à-dire que dañoo nekk si projet d'album amaguñu xaalis artiste amul xaalis ok mais donc ça veut dire man sama crédit laa nekk di woowee producteur bi sama crédit laa nekk di woowee média bi en de suite ainsi suite mais su ma neexee ma ne loolu bés bu ñu génnee album bi dañ ma koy fay mais quand ça veut dire que nag su may dépenses il faut que moi yëglu ak ki nga xam mooy fay mm. artiste mooy patron bi mm. man su ma demee defi ay dépenses yu colossales ça xamante ne yëgalu ma ko si dara mm. su ko neexee ba pare mu ne non lii joxew ma si sama avant c'est comme une entreprise vous n'avez pas bon de caisse yow saa yu dara soxla wala ainsi de suite parfois dans sax PDG bi da ngay def par bon de caisse mais tey boo dekkee nag di def dépenses yoo xamante ne c'est faramine alors que tey après structure comme ko a fay là ça pose problème c'est-à-dire que donc tu as le choix entre mën nga def dépense yooyu et que doo ko fayeeku par exemple c' est compris parce que parfois dañu naan non transport bi kii beeg yooyu muy utiliser c' est compris dans le dans le dans le dans le pourcentage. Mm-hmm. parfois nag mën nañu def que ni loolu c' est remboursé mais remboursé sur bien sûr nga présenter pièce justificative. Mm-hmm. Aja Tamza. ok <laughs> bon question may posé waat mooy que tey euh, nga gis euh, hip hop euh, gars fu mu toll ci ay difficultés ah par rapport ak sous raison bi. donte dañuy bàkkoo ne tey hip hop bi ñuy def fii moo gën a paax moo gën a voilà moo gën a nekk hip hop mais booy xool tey artistes yi nekk ci sous région bi ñoo gën a nekk en l'aise tey boo demee Mali dem Burkina dem Guinée da ngay gis artistes yi di dawal oto yoo xam ne suñu artistes fii duñ ko dawal mm-hmm. te dañuy remplir ay stade donc est ce que ñoom dañu am ay ménagères yu baax wala lan mooy problème bi donc au niveau du Sénégal tamit yaa ngi koy wax sànq donc paas yeeg donc wala nga def loon nit clip après bàyyi ko mu dem est ce que du négociation bu ëpp boobu tax na affaire bi demul donc gars yi gisuñu seen bopp parce que souvent noonu lay demee clip yi dañ lay invité rek nga ñëw pare nga tey boo xoolee côté accident yi buñ la woowee ci clip figurant dañ lay fay donc fii dañu seetlu ne loolu amu fi donc comme ni ma ko waxee côté sous-région bi ni muy doxee est-ce que ñoom côté management dañ ci gën a baax la suñu côté bi am déet lu xew luy problème bi. alors déjà loolu environnement dëkk bi comme je disais tout à l'heure ak politique culturelle de si jouer lu bëri tey am na dëkk yoo xamante ne dañoo mis ci seen culture pour développer son tourisme ñun fii amul loolu déjà c'est très parfois sa ngay jékki-jékki rek gis ñu jël benn artiste euh, mu way euh, Sénégal wala ñu wane zone touristique yi ainsi de suite mais c' est à dire que ba léegi fii defuñu combinaison entre culture et ak tourisme bi culture ak yeneen secteur yi foofu laa doon waxee sànq que ne am na politique culturelle boo xamante ne à revoir après aussi euh, démographiquement ça compte par exemple il faut xool dëkk yooyu noonu ngay wax euh, seen seen population fan la toll ak ñun suñu population fan la toll parce que tey boo jëlee lu mel ne par exemple je prends l' exemple de la France mais France mais ils sont nombreux <laughs> macha allah dañoo bëri mhm. c' est à dire que ñooñu pour que stade bi fees c' est c' est facile en fait wala pour stade bi fees dafa dafay yomb mhm. parce que nombre de de d' habitants bi moo tax dafay dafay colossal cette pratique c' est la même chose aux États-Unis wala ainsi de suite et même si sous région bi ngay wax donc loolu aspect boobu dafay dafay important si loolu après aussi pouvoir d'achat aussi d'assez compter ils sont très à l'aise pour dépasser yenn dépenser yenn montant pour faire bénéficier vidéo clip la production benn album est-ce que ñun si pouvoir d'achat non sérieusement je dirais que non déjà en termes de de finance même boy bi de def projet pouvoir d'achat aussi du côté du public Il nga a hip hop public qui suivre public bob est-ce que ils sont dans dans dans les dans les conditions pour acheter album buy def temps est-ce que nous nañu fay ben ticket de concert tay bo xolé Sénégal bi légui concert tourne ça tourne bataille 2000 2500 3000 5000 maximum VIP gold nga 000, 15000 20000 imaginez alors que tu prends une salle, Ramantani, tu payes 1 million, 1 million plus. Il y a une salle, il y a une grande salle à Dakar, ça, tourne autour de 1 million. Ben, si ce n'est 600, mais ça fait que 1 million. Alors, imagine que tu as une salle à ce prix-là. Mm-hmm. Après, tu as une sonorisation à quel point nga doogay jël les techniciens yi nga xamante ne ñooy gération avec lumière bi ainsi de suite après nga war a fay régisseur bi tu prends un DJ yeneen artistes yi nga invité am ñoo xam ne da nga leen di fay am na ñoo xam ne peut-être say am ngeen benn relation boo xamante ne peut-être transport nga jox ainsi de suite ainsi de suite mm. c'est-à-dire que tey concert boobu pour nga génn si c'est un problème bu dee culture urbaine bi nga nga jël comme exemple. ok mais maman ah allez wala pare wala nice waaw donc en fait ce que je voulais dire moi mhm. donc tu as ñuy def il faut ñu xool différents différents qui yooyu. ba pare tam am na paramètre moi les sponsors. Mhm. euh, Sénégal RSE malheureusement entreprise yi ko fi bàyyi xel bëriwuñu wala en tout cas même koy xel est-ce que li ñu intéressé ak li leen intéressé euh, c'est la même chose mm-hmm. c'est-à-dire que tey sponsor bu dee yow da ngay def sa événement te pour que sponsor joxe si c'est un problème wala entreprise joxe si c'est un problème loolu tamit da lay da lay tënk c'est-à-dire que tu es obligé de ne compter que sur li nga xamante ni le public di fay ak yow sa apport personnel ak peut-être yeneen activités connexes yoo xamante ni di ko def autour du projet mm-hmm. donc pour dire que ni tey suñu bëggee développer il faut ñu la politique culturelle il faut que aussi ñu le pouvoir d'achat parce que tu es obligé de si xel da ngay dépenser si album un montant colossal. Mm-hmm. mais xam nga ne tu as ma jaayee CD 10 000 pour que nit ñi jënd ko day problème tu es obligé de baisser le prix C'est ce day agir même si vidéo clip yi ngay wax c'est-à-dire que tey clip bi. il faut que atteindre xam nga YouTube moom nañu waxante léegi rek fayam tamit mooy loolu mm-hmm. donc tey clip bi tu veux dépenser un montant est-ce que es artiste bi kay def wala ñaata artiste ñoo ko fi mën nga fay euh, ki ñi tourne ñi def vidéo bi réalisation production bi et tout après aussi nga jël décor bi jël en charge solo bi ainsi de suite ainsi de suite bëgg fayaat aussi kii bi loolu mooy quand même li nga xam ne mooy normal fay bu fay figurant yi loolu la ñuy ñaan yàlla mm-hmm. mais aussi loolu dafa laaj benn benn travail boo xam il faut que ñu def ko en amont pour l'industrialisation du secteur euh, Atia ba tey yéen ñi nga xam ne ñu déglu sur la 104.9 il est 12 heures passé de 23 minutes Atia di len wax ne leen ba mën ngeen dugg ci ligne bi sur 78 426 86 30 78 426 86 30 tëjël nañ len ligne bi yéen yi nga xam ne bëgg dugg laaj seen question euh, ak euh, maman fay mu expliquer le mais maman est-ce que manager bi tamit war na doon ko xam tay ji comme ni ma ko faral di waxee ko xam tay ji dafa war dafa war pluridisciplinaire maanaam fu nekk dafa war a mën a cof cof xam fa dara parce que imagine toi nga bëgg a dem euh, dem euh, décrocher sponsor ñëw war a wax A wala wax B wala ñëw ool na la kaay nga war a ñëw négocier fii euh, di wax A wala wax B c'est-à-dire manager bi tey war na mën a am ci plan bu nekk war na fa mën a am xam-xam tuuti pour mën a mën a doxal li nga xam ne tey mooy plan de communication. sur tous Surtout tous les plans il faut nga am ben la expert mais nga fay que am le maximum de connaissances euh, c'est vrai que de plus en plus ñu on les présente même plus comme des managers, mais plutôt comme des entrepreneurs culturels. Parce qu'en dehors même de gérer la carrière de leurs artistes, de, euh, mettre sur pied des projets, c'est pour la culture d'une manière générale donc on parle beaucoup plus d'entrepreneurs. et l'autre tamit day am niveau en fait plus ngay avancer plus ngay jéem atteindre niveau en fait pour dire quoi que non mm-hmm. c'est l'artiste qu'on est en train de vendre c'est-à-dire que il faut que l'artiste aussi mm-hmm. mu am Ben que ça soit dans ses textes que ça soit dans sa musique que ça soit dans sa façon de se comporter mm-hmm. que ça soit dans sa communication entre autres mu am aussi mieux comporter Il y a de de d'artiste sur parfois pour que mu am type de sponsor en tout cas c'est assez compliqué parce que mooy est-ce que cible ou est-ce que profil ça correspond à ñooñu profil bi ñuy bi ñuy c'est comme tay euh amna ben style de rap bo xamante tay parfois mo gëna compliqué pour me trouver des sponsor parce que tay sponsor tam ils sont plus dans le dans le ñu koy dans je dirais pas dans la fougue mais ñom dañu bëgg fu nit rap, bëri rëmb xam nga ainsi de suite ainsi de suite ça peut ne pas coller avec les styles de l'artiste et puis être artiste aussi donc imposer que juste pour que vous décrocher les sponsors wala les partenaires par moom changer wala dénaturer li nga xamante ne moom la gëm wala moom ni bëgg musique parce que loolu tamit euh, en fait c'est c'est son choix personnel après aussi les sponsors et partenaires parfois aussi pas comprendre lan lañ bëgg quand je dis qu'elle qu comprend le si on prend euh, l'exemple de, de, de, de, Show of the Year, par exemple, pour mm-hmm. des publics, qu'est-ce que tu Mais attends, tu as un style rempli pour nous, mm-hmm. Donc, tu as un problème de, de, de, notoriété, voilà, ainsi de suite. Mm-hmm. C'est-à-dire que nous choisissons les moins intéressés. Ils sont plus intéressés par artistes qui à l'extérieur. Ils sont sponsor, il est prêt à mettre 10 millions sur Coco mais il n'est pas prêt à mettre une, centaine de mille euh, de de de, mille pour un artiste bu est c'est-à-dire que parce que Fofutamit, tamit. RSE et man je dis parfois que même état bi sax dafay xaw a un peu parce que amna yo yoo entreprise bu ñëwé di samp sa dëkk wala entreprise bi nga xamantene ne même bu dee nit ku dëkk sa dëkk moo ko nekk di samp amna yo xamantene ci cahier de charge am loolu lañ ko samp c'est-à-dire que en sur le sur le domaine culturel amna lu mu wara def sur le domaine de l'éducation amna lu mu wara def ainsi de suite ainsi de suite malheureusement fi duñ ko topp dañuy bàyyi def nu mu ko neexee rek dañ leen di jiiñ benn affaire souvent ñu ne li ngeen porter projet bi moo baaxul parce que dañuy gis comme ni nga waxee dañuy gis yenn artistes yu en France ñëw sponsors yi topp donc mais des fois dañ leen di jiiñ ne yéen li ngeen di li ngeen di li ngeen di indee projet baaxul fi yoon bi ngeen ko jaarale baaxul est-ce que loolu loolu noonu la demee. yoon bi ñu ko jaaree c'est-à-dire. manam tay ñu gis né projet bi niñ ko bindé parce que donc xam nañ ne projet boobu am na ñoo xam ne tey projet la dañ ko mëna bind xam nañ koy jaaralé. donc xam heure yi koy déposé. <laughs> donc déjà ki baye ba ba ba décembre mu bëgg a ben projet bo xam ne daf ko soxla. janvier wala nangam wala bon ci ay délai yo xamné ne peut-être méngoowul ak par rapport ak ni ni détails yi di génnee donc est-ce que lolu tamit souvent du nek seeni fay c'est vrai xam nga dernièrement No na ah, non non bàyyi wax bu projet <laughs> gi no comment loolu la wax commentaire no comment ah. bon xam nga xam nga loolu tamit comme on dit yooyu yëpp tamit ñuy ñuy aussi en fait plus ngay euh, mooy comme li may wax am na loo xamante ne sax doo ko jàng. am na loo xamante ne il faut nga dem sur le terrain nga am problème boobu wala nga dal si obstacle boobu nga doog comprendre c'est-à-dire que tey di nga ñëw déposer fenn dossier. ñu ne la ñun euh, deux mois boo toogee par exemple moins de de deux mois. boo déposer projet mënu jàll parce que ñi koy saytu ba ñi koy xool ainsi de suite ainsi de suite loolu day am. man ñun ñi sax dal nañu dernièrement c'est-à-dire que muy man muy keneen mën na la dal. après si ngay comprendre que ne tel parce que am na ñoo xamante ne structure day différent parfois ni ñuy fonctionner même ONG day différent seen fonctionnalité c'est-à-dire que bu si nekk nag bés boo jéem a jëflanteeg moom ngay comprendre moom ban mooy système am léegi après nga commencé jéem a adapté wu en fonction de ça pour dire que par exemple moi li nga doon wax par rapport à sponsor am na xam ne ils sont pas compliqués soo ñëwee ça une semaine avant vous nous que le projet c'est c'est pertinent pour nous ñu jël quoi alors am na ñoo un mois deux mois à l'avance pour déposer au déposé wu travail ak yow. dernièrement ben projet vous donne doon liggéey mais ñooñu dañu ne il fallait que ñu déposer le projet en décembre parce que nous à l'international nous décembre pour les clôturer pour mon a xam projet ak ban projet l'année accompagner ci année bii di ñëw pas c'est pas la même chose au niveau du Sénégal mm. léegi en termes de rédaction de projet aussi je pense que de plus en plus les gens commencent à reconnaître que les rédactions de projet même c'est un métier c'est un mm. travail euh, dañ et du danga koy rek à la va vite te même tay boko ko mokka boo ko sax du tee parfois nga dal si appel à projet yo xamante ne dangay toogaat yenn say bop parce que tu vois que le système ak système bi c'est différent par exemple euh, formulaire yi ngay gis Sénégal mm. ak formulaire yi ngay gis pour euh, Union européenne wala wala je sais pas man wala euh, États-Unis mm. ainsi de suite mm. mais c'est diamétralement opposé du sax même modèle yi en fait donc il faut que tout le temps ça yoo gisee modèle bu da ngay jàng en fonction de modèle c'est pour dire que ne ñëpp maîtriser ñu lépp maintenant am na benn mbir boo xamante ne man euh, dama koy dégg et man sax ñun sax dañ ñoo yem c'est-à-dire que wooy c'est que projet bi même bi nga ko déposé mais yeggul si nga ko waroon yegg la faute à qui ka fa toog di réceptionner document yaa ko fa teg mm-hmm c'est pas à moi après peut-être que vous nekk di trouver astuces pour t'assurer que le projet mingi ngi mais je veux dire que aussi amna entreprise yo xamante wala sax mairie yo la faute leurs incomes. c'est-à-dire que c'est un travail interne mo baaxul hmm. da ngay déposer lettre mairie ñu naan la non c'est que parfois da ngay déposer lettre du Ahmed moo fa teg kooku di réceptionner lettre yi c'est à lui de veiller à ce que kooku noonu mujj lettre ye yeggale ko te am na kenn ku ñu doon waxtaanal mooy dafa mës a déposer benn lettre si benn entreprise ñu ne ko ah soo moytu day yeggul parce que waa parfois lettre day ñëw mu xool ne ah bii daal soo moytu amul importance yow dañu ne nga réceptionné kenn de la nga tijji xool bay joxe sa avis c'est-à-dire que c'est des choses yoo xamante ça se passe dans les entreprises ça se passe dans les mairies mm-hmm. et que ñoom noonu après dañuy incum incomber faute bi ah, au rédacteur de projet wala en tout cas ki nga xamante ne mooy projet bi que c'est pas comme ça c'est à eux de veiller sur ça mm-hmm. maintenant nag ku si nekk da ngay def nu mu la arrangé rek mais am na yoo xam ne moom jaarul yoon. léegi nag tamit bind projet c' est normal c' est à dire que tey ñun ñu nekk si surtout nag ñu nekk si culture urbaine hip hop xam nga ñun hip hop contrairement ak yeneen dafa am ses propres termes. am sa sa propre façon de s' exprimer ainsi de suite ainsi de suite mais yow mi bind teniral en compte que ne kii sa projet nekkul si hip hop bi. c' est à dire que essayer d' utiliser langue officielle wala en tout cas terme officiel yi nga xamante ne moom la nit ci di wax comme ça mu comprendre ko tey tamit ñun dañuy tàmm parfois def projet sans préciser ñun ñooy suñuy cible te ki ngay jox projet bi dafa bëgg xam est-ce que cible bi nga bi nga bi nga bi nga ciblé est-ce que est-ce que même chose que moom la mhm. ñun suñu cible sax parfois dañ koy yemal ne non si mélomane yi par exemple damay génne album mais si lan mooy sa cible mélomane hip hop mais non ça peut aller au-delà de ça surtout nag bu nekkee koo xamante ne par exemple euh, par exemple tey ça dépend même son yi nga xamante ne booy déglu son yi rek loolu mën na changer cible bi c'est-à-dire que album bi album euh, hip hop la mais tey su ma si wooyee benn son boo xamante ne par exemple mbëggee la xam nag dama rawante <laughs> par exemple loolu mais ça touche un autre cible en fait c'est-à-dire que ça touche euh, les couples ça touche même euh, ñi nga xamante ils sont pas mais ils sont en couple les mariés ainsi de suite ainsi de suite c'est-à-dire que donc cible bi élargir na sens que tu t'en rendes compte mm. yow tu es en train de parler de nit ñi nañu jóg liggéeyi ainsi de suite c'est comme le son de le Divanji par exemple mais là tu touches tu touches la la la jeunesse en fait tu touches la jeunesse mais tu touches aussi ñi nga xamante ne ñooy joxe liggéey wala ñi nga xamante ne développer des projets dans ce sens-là ça veut dire que ce cible dem au-delà des mélomanes du, rap mais touche à un secteur ainsi de suite ainsi de suite tu parles de l'enfance par exemple way mais ça touche beneen cible ça touche à la petite enfance ça touche euh, euh que ça soit les euh, écoles les jardins les cases tout petit mm-hmm. ainsi c'est-à-dire que quand il y a cible donc as si ce document cible forcément en termes de en fait ok yéen nga xamné ba tay ñuy déglu sur la 104.9 il est 12 h passé de 53 minutes il nous reste 6 minutes ou bien 7 minutes euh, ñu def euh, pause hein.

Alors déjà dire, euh, déjà la première chose à, rappeler, moi que c'est pas un travail facile, c'est un travail bon somme insomnie dans dans la <laughs> euh, fatiguement physique et moral dans la parce que c'est un travail de stress en fait c'est un travail pour chaque chaque instant mën y am de nouveaux obstacles wala euh, en tout cas des choses il faut s'adapter en fonction de ça mm. donc il faut que tu sois créatif je pense que ne Covid 19 bi rek jàngal ko on a été obligé de revoir nos projets de revoir nos concepts de créer de nouveaux concepts en fonction de cela donc c'est un travail aussi il faut il faut beaucoup de motivation parce que dina am euh, ay moments yoo xamante ne day neex am moment yoo xam ne moins ainsi de suite

day ñëw xam na ne heure bi lay liggéey ba heure bi la wàcc su weer deewi lii la am yow amoo ko am pratiquement doo am sax te heure de travail ainsi de suite donc c'est c'est pas c'est pas c'est pas facile après manager bi artiste il faut que ñu xam ne c'est un travail d'équipe c'est-à-dire que yéen ñaar vous êtes appelés à cheminer ensemble yéen ñaar yéen a bokk fi nga xamante ne foofu ngeen di bëgg foofu ngeen di bëgg jëm donc il faut que mu am tey benn complicité entre yéen il faut quand même que la communication passe entre vous il faut que ngeen ñemee waxante dëgg mais il faut que avant tout ngeen xam ne vous êtes une équipe et que il faut que tolérance am compréhension évolution am euh, management artiste bi ni ma amé plan de carrière non le manager war à mes plan de carrière c'est-à-dire que tay lo xamone daw ren war nga xam lu ëpp lolu ce réseau fi mu yemoon daaw ren war nga am réseau bu yegg il faut que tu sois créatif il faut que tay autour même d'un simple album mën nga créer tout un concept pour que je on sait que c'est du la vente d'album demain tout comme monde comme nous avant donc il faut que yow en dehors de ce nga revenu bi album bi il faut que yow ngay un créer un concept wala encore développer un projet qui alors aussi nit ne pas donc il faut qu'on sache euh, nous entourer des personnes qu'il faut wala tey bu dee ne tey da ngay gis ñoo xamante ne ñu ngi bokk ba def benn projet wala ñu ngi bokk di cheminer ensemble mais ñoom ñëpp amuñu yenn connaissance yi tey nañ toog ñoom ñu jéem a xool ñu jëf ne ah kii kat tey dañ ko yóbbu mu dem jàngi infographe comme ça boobaa ñun on a un infographe à l'intérieur kii kat il faut mu jàngi community management comme ça ñun tey ci biir équipe on a quelqu'un koo xam mooy gère institut institut c'est-à-dire il faut que les gens se forment il faut que ñu tijji suñuy réseau il faut que ñu sob il faut que nous tolérant mais il faut que nous ayons motivation donc c'est vraiment un plaisir de participer au festival donc c'est pas la première fois et ça me fait énormément plaisir donc c'est un réel plaisir d'être à Warwi FM aussi donc ce moment c'est première partie <laughs> sës moom ah, <laughs> donc loolu la euh, di naan li euh, ñu aussi parce que foo ko mu déplacé wu. Hmm. moom mooy Sénégal hip hop euh, aussi di rafetlu ñi nga xamante ni déplacé wu hmm. équipe bi aussi di naan nañu wéet. Hmm. deuxième partie bi. aussi jeexagul quoi.